أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا واشهد ان لا اله الا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص سحر رمضان بانزال القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhaanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi suratul baqara ba tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñuy jël tey aaya 233 aaya bi nekk sunu kanaw ginnaaw bi sunu borom subhanahu wa taala leeralee mbiru jigéen ñi attey fase ñëw na di ñu leeralal yenn saa yi jigéen mën nañ ko fase fekk moment biñ koy fase dafa ëmb kon war nañu xam àtte ëmb boobu ak doom jooju nga xam ne moom la ëmb ci biiram te mu fas yéene koo juri walla lenn saa yi mun nañ ko fase mu dem di yóbbaale doom juy nàmp ñaari yoon yëpp bu ci mën a nekk dafa ëmb war a ami doom wala am na doom ba pare fase am loolu la nañ sunu boroom subhanahu wa taala di leeralal tey mu ne bépp jigéen boo xam ne dañ koo fase li war ci moom mooy mu nampal doomam ji mu yóbbaale ci fase bi na ko nampal at wala ñaari at ñaari at yu mat sëkk na ko nampal ñaari at xawlayni kaamilayni ñaari at yu mat sëkk su fekkee moom ndaw si bëgg na nampal loolu na ko def wala baay ji nga xam ne moo jur doom ji bëgg na ñu nampalal ko ñaari at amul problème waaye ndaw si buy nàmpal war na baay ji dur doom ji financé femme bi ak xale bi comme yaay ji mooy nàmpal kon baay ji moo yor dund bi mooy dundal xale bi dundal yaay ji bu fekkee am na ko waaye yem du yem rek ci dund lekk ak naan même lu ñuy sol waaye loolu yëpp sunu borom nee nañ ko def ci njekk comme baay ji ni mu ko mënee ci am am ak ñàkk kenn ku nekk tolloowuñu ku nekk ni nga mënee na nga defee noonu ndax yàlla subhaanahu wa taala tegul benn bakkan lu dul lëm mën ci kem talaayel kàttanam na mu ko mënee na ko defee noonu sunu borom ba tey di leeral ci aaya bi ne kenn ci ñoom ñaar amul droit di lor doom ji loolu nag sunu borom bi bind moo xam moo tax mu wax ñu ko léeg-léeg nga fas jigéen muy nàmpal mu teg doom ji dem yoonam ne la kii dama ko fi ba duma ko yóbbaale pour naqaral la yow mi ko fase léeg-léeg aussi baay ji léeg-léeg aussi haut-parleur yi ah mu ngi wax de dafa mel ne léeg waaw léeg-léeg aussi baay ji ndaw si lànk bañ a nekk ci kër gi ba fase am ñu bàyyi ndaw si yóbbaale xale bi mu ne saye sama yoon ci ñoom ñaar ku nekk mere bi nga mere sa borom yenn saa yi nga bëgg ko sippi xale bi ci biir kër yi sax yenn saa yi faseto am nga gis baay ju mere yaay dóor doom wala yaay ju mere baay dóor doom yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne wala nga gis ku mere jëkkëram saaga doom ji wala nga gis ku mere jabaram saaga doom ji maanaam doom moom bu ko kenn def nattukaay booy faja mer moo tax suñ borom ne ñoom ñaar kenn ci ñoom amul droit lor xale bi yaay ji amul droit ne du ma nàmpal xale bi parce que papaam moom laa doon séel fase na ma baay ji tamit amul droit ne dootuma financé xale bi parce que dama doon séeg yaayam yaayam dem na yoonam déedéet bu kenn te xale bi toor nattu ay jafe-jafe xale bi yoonam nekku ci bu kenn def loolu yaay ji bu mu teree nàmpal xale bi baay ji bu mu teree joxe dund xale bi bu ko kenn def baay ji na xam ne doom ji doomam la moom moo war a yor dundam koddaayam ak léppam lekkam parce que loolu moom la war na xam loolu moom bàyyi sunu borom subhanahu wa taala li ñu leeralaat ba tey ci biir aaya bi beneen àtte ginnaaw muy tere ku lor xale bi muy wax ne ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo yor mili xale bi walla xale bi ci boppam bu mu lore loolu mooy lan xale bi baayam dee na bàyyee na kook alal walla alal jooju baayam bàyyi mbokk yi nga xam ne ñoo nar a gérer xale bi buñ jël alal ji bi daal alal ji daal koy aaki moo bàyyi ki war a yar xale bi comme li tubaab yi def tey tubaab yi tey boo fa demee nga faatu fa sa jabar yor doom dañuy jël alal ji daal koy def ci benn compte bloqué ko daan ne ba mu majeur léegi yaay ji ne cundum du am fu mu dunde du am lu mu la dundale loolu loolu du yaaduwut loolu du diine ñun suñu diine lu mu nu wax mooy borom kër bu faatoo am ku ñëw jël xale yi war leen yoraat bu fekkee am na alal soxlawul ci alalu xale yi dara alhamdulillah bu fekkee amul day boole alalam ak alalu xale yi di dundal xale yi dañuy tere mu jël alalu xale yi kese dundee ko su fekkee nag ñoom ñaar ñoo yem ñoom ñaar ñëpp a ndóol wala xale bee tane su boobaa mën nañu lekk ci alalu xale bi waaye nag lekk aussi bu yemamaay gu digg doomu goo xam ne du jiiroo nañ ci profitoo pour comme moom moo yor xale bi borom baa ngi leeral tamit ne bu ñu demee ba war a feral doom ji war ko tere nàmp dañoo war a diisoo diggante ku góor ke ku jigéen ki waaw loolu bàkkaar amu ci borom baa ngi wax ne nanu ragal yàlla nañu xam ne yàlla subhanahu wa taala moom day lépp lu def moom xam na ko gis na ko kon mbokk yi aaya bi tey lañu fas yéene gont fàttalante ci sunu kemtalayel kàttan ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu saxal sunu làmmiñ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن هولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف laa tukallafu nafsun illa wusaha laa tudarra walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala alwarithi mithlu dhalik فإن أرادا فصالا أن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير borom bi subhanahu wa taala nee na wal walidaatu yaay yi ndey yi yurdina ñooy nàmpal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at amayni kaamilayni yu mat sëkk gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala comme moo bind moo xam ki xam bind xam munul nuroog ki bindul munul nuroog ki utiliser xelam munul nuroog ki nga xam ne programme am yëpp programme dund àdduna la borom bi nee na yaay yi ñooy nàmpal seeni doom ñaari at yu mat sëkk wal waalidaatu yaay yi ndey yi yurdina ñooy nàmpal nàmpal ku koy def looy joxe sa nopp ah nopp la ñuy nàmpale bët bakkan gémmiñ la la ñuy nàmpale ween kon yaay yi ñoo jël seen ween bu ñu amee doom jël ween yi jox doom yi léegi nag tubaab yi nañu non loolu kon day day ñaawal ku jigéen ki te loolu xamu leen secret bi ci yàlla def dinañ ci ñëw ci kanam ba ñu waxee lii ba pare mooy nàmpalu jigéen li ci nekk ci yërmande li ci nekk ci barke soow moomu ni ko yàlla composé ci jamono sedd ban nature lay yor ci jamono tàngaay soow mi ban nature lay yor ak soo soow mi li ko composé mu war a nekk njëriñ ci xale bi du hasard yàlla bind jigéen dafal koy ween mu am doom ween yi am soow soow moom lan lay jëriñ bu fekkee ne xale bi di ko naan léegi nag tubaab bi bëgg laa gëmloo ne booy nàmpal sa doom sa ween day daanu da ngay ñaaw ba pare leneen li ci nekkaat mooy yàlla ñaata at la wax lañ nàmpal ñaari at yu mat yaa ngi nàmpal ñaari at yu mag est-ce que kon ñaari at yi di nga fi amaat doom fi amaat doom léegi looloo tax planification léegi loolu moo tax tubaab yi bi ñu demee tere nit ñi nàmpal ñu dem ba gis ni léegi monde bi bëri na nit ñu deen kaay leen nag de non ndekke gis ngeen soowu nit soow mi li ci nekk commencé mais kan moo leen waxoon ñu tere nit ñi nàmpal du ñoom ñoo demoon ba caag ñu ne kenn warul nàmpal jël ay bi waroon di jël soowu nag di ko nàmpal nit ñi loolu lan la jural nit ñi tey mooy ñi nàmpoon soowu nag yëpp mbooloo muñ dem doole la ñuy jaay même bu ñuy dox sax béjjënu nag yi ñooy génn béjjënu nag nan la du nii mooy nii comme mënoo ko yëkkati naan nii di dox ay naan nii def ko nii écarté ko fu nekk doole amul waxtaan amul xel doole rek lan la nit ñi di jël génération bi nàmpoon biberon yëpp doole la ñuy jaay fu ñu dem doole même bu ñuy wax doole la ñuy jaay seen dox dëng rëng këng rek lépp doole parce que nag xam ngeen ne amul xel doole rek la am soo nee nii rek nag dugal na bi bopp bi lan la ñuy jural tey agresseur yëpp bi baroon lañ nàmp parce que amuñu yërmande ñiy dóor seen yaay yëpp bi baroon lañ nàmp parce que amuñu yërmande ñiy dóor seen baay ñiy rajaxe dëkk bi tey ñëpp bi borom lañ nàmp def leen étude yi léegi nii lañ commencé terewaat nan na nit ñi nàmpal seen doom mais jamono bu passé bi yëpp boobu gigoos moo xewoon bi borom pharmacie di wan nit ñi nuñ koy baxalee nuñ koy kiyee soow mi nuñ koy defaree ñëpp ñu jàpp leen sol leen soow nag loo ci gis te loolu du Sénégal rek de àdduna bi yëpp fépp fi nga xam ne da du ñu nàmpal lu fa xew wala Amérique pistolet rek gis nga la mooy seen problème même tey démb barki démb am na ku duggut encore rey et gis benn waaye bu sol pistolet ba mu fees rek cop ci mbedd mi ku mu dajeel rek waaw day rey ba doyal rey boppam wala police ñëw rey ko fan yi la passé ci benn cinéma lan barki démb xaw ma ci benn xaw ma lan gis nga parce que yi ku dul nàmpal ku nàmp nit suñ ko nàmpalul soowu nit du baax du nite nit buñ ko nàmpalul soowu nit buñ la nàmpalee soowu golo wala soowu nag wala soowu mbaam wala soowu xaj mais looy def mooy tax woykat bi naan ku nàmp soowu nag bu nàññu lit daan bu leen ma nax ci gone gi bu nàññu lit daan bu mbëkkewul xaw ma ne fu ne comme noonu nag di def mais fa mu mbëkke bu naa ñu li daan wallaay wax na dëgg kon yàlla moo wax dëgg yàlla mi bind nit utal ko ndey ak bàyyi ah ba pare préparé min bayni farsin wa damin labanan xaalisan sairan li sorabi li charibin yàlla mi préparé ween fi mu nekk fexe ba mu nekk ñaari mbuus mu ngi nekk ci diggante soow ak deret yàlla freiné deret bi soowum di génn instant bi boo jëloon lañ sat nga dagg weenu jigéen luy génn deret kon soow mi fan la fa nekk moom muy muucu soow mi di génne deret génnu te boo ko daggee deret mooy génn waaw gis nga fi ko yàlla denc ni mu mel ni mu tuutee ak bën bën bi ko yàlla utal xoolal ndaw si avant muy am doom lépp foofu day fatt bu amee doom quelques jours xale bi di muucu soow mii njëkk a génn nuróowul ak bi fay bi fa yàgg boobu dafa jaune am na lu muy jëriñ moom ngay dégg tey ñu naan non boobu la war a njëkk a nàmp mooy aar xale bi ci feebar yu sew sawaan yi nga xam ne comme dafa fragile dafa tuuti soow moom moo koy ci jamono sedd soow mi day nugg su tàngee mu sedd dañ dafa am ay frigo yu nekk ci biir mais yàlla yàlla moo bind moo xam yàlla suñ ko joxee li mu moom rek nit ñi am jàmm waaye bu ñu nee nit ñi ñoo gën a xam yàlla mi bind ah du dem dañuy sonn rek yàlla nee na yaay yi ñooy nàmpal seen doom yi ñaari at yu mat sëkk beneen bi mooy planning da ciy nekk waxuma santé xale bi mais xale buy nàmp ñaari at du fi am rakk xanaa feebar boobu ñuy tuddee nef am mooy ci biir nàmpal bi nga jël ci ëmb gis nga kon yàlla moo wax dëgg ñaari at yu mat sëkk na ngeen ko nàmpal seen doom ñaari at xawlayni kaamilayni ñaari at yu mat sëkk xawlayni aamayni ñaari at borom bi subhanahu wa taala mu ne alal ummil mutlaqa war na yaay ji ñu fase gis ngeen an turdiya waladaha mu nàmpal doomam xawlayni kaamilayni ñaari at in araada hiya fekkee ne moom bëgg na ko nag fekk mu bëgg ko wa abil radi bàyyi ji jur doom ji nàmp moom it lu ko war itmaami rida mooy ñu motal nàmp wi wa anna alal mawludi lahu huwa wal ab mu ne war na bàyyi ji ci jamono jooju yaay ji di nàmpal yaay ji bëgg a nàmpal ñaari at kon ñoom ñaar lu leen war waxtaan bu bàyyi na ñaari at yaay ne man du ma nàmpal ñaari at conflit day am bu yaay ne ñaari at laay nàmpal bàyyi ne xale bi du nàmp ñaari at problème day am kon lu fi war ñu jéem a waxtaan moo tax mu ne liman araada an yutimma rodaa liman ñeel ki nga xam ne araada namm na bëgg na an yutimma mu motal ar rodaa ko nàmp gi am ñaar kenn ku nekk ci ñoom bu ñu bëggee matal loolu jéem a xool nuñ koy defee ba mu mat maay li gën mooy ñu def li yàlla wax ñoom ñaar ñëpp ñu ànd ci dëppoo ci histoire bañu am wa alal mawluudi lahu rizquhunna yàlla mu ne wa alal mawluudi ñeel na ki ñu jural doom ji mooy kan papa ji rizquhunna seen dund wa kiswatuhunna ak seen ak seen ak seen koddaay ndeke kon baay bu yaay di nàmpal baay moo war a yor dund baay moo war a yor koddaay di nga gis nag benn góor boo xam ne dafa alku day fase jigéen mu dem mu fàtti am na benn journaliste ci dëkku dëkku kaw yi nii mu ngi ci rajo yu mag yi moom dafa amoon ak ay mbokki jabaram problème ba yàlla def problème bi continue continue continue ba mu fase ndaw si mais ndaw si def ko dara mais bi mu koy fase mu ngi ko bàyyi xale bu ndaw ba xale bi dem ba jàng ba war a def ba xaw ma befem xamul papam te papam journaliste bu mag la am na ku ci doon dox nag fexe ba waa ji ñëw gisaat doom ji doom ji gisaat baayam mais xam nga loolu musiba la am na ci ñoo xam ne waxuma la waaye dañuy suur xale bi këng dana leen jaral sax bu fekkoon ne ndaw si dafa ëmb ñu ne juruma doom ji xam naa ndaw soo xam ne bi ko waa ji di fase dafa ëmb mu dem ñu toog quelque temps weer ñaari weer ñu ne yónnee ci waa ji ne ko ah mbaa xam nga ne ndaw si nga fase dafa ëmb waa këram ne ko waxal du yow mu ne du man ñu ne ko ah juróo ko mu ne juruma ko ñu ne baax na ndaw si ëmb am doom daal di jur waa ji dégg leen li ma wax de ah waa ji la jur non loolu du nuróo jur laa wax jur xam nga nuróo mooy jur laa wax jur gémmiñ gi bakkan bi gàttaay bi yar teen bi laa xawla wala quwata illa billah même gémmiñ gi yaatuwaay beeg ni mu mbappaaralee ñoo ko nuroo billahi wallahi taala soo ko gisee rek doo laaj fu mu mujj jégglu de jégglu rek seytaane rek diraay dox seytaane rek mbokk yi bon rek xam na ne moom xam na ne moom la sa jabar nga koy fase muy jël bagage yi ne la dama ëmb nag dem ba këram ay fan ay mbokkam yónnee la nga ni du man ngir ngir jéem koo naqaral léegi doom jooju dundaloo ko nga bàyyi ko noonu te yàlla nee na jigéen ku ko fase mu ëmb yaa yor de paasam doom ci ak moom yëpp ba ba muy am doom ci jamono bi muy nàmpal aussi yow yaa yor dund gi yaa yor koddaay lii yaa ko yor est-ce que tey lii lii moo am ci dëkk bi lii la Sénégal di doxal kenn doxalu ko parce que nit ñi jànguñu diine ku fii fase ku ne doo fase fase bu rafet ku fasewul fase bu rafet doo toppatoo bu dee doom la nga bàyyi mu dem nga sàggane ko ba mu xëy nag nekk colonel ñëw takk ay grade wàcc benn oto grade fi yëpp fees ak dënn bi naan sama papa laay seet ñu naan kuy sa papa nga ne non il paraît dañ ma tegtaloon sama yaay def ma tegtaloon quoi dama Dakar la dëkk rii nangam nga ñëw di woo nit ñi naan leen ah asalaamaaleykum yaa dama am gànde yàlla kii de sama doom la maa ko jur loolu ñaaw na de léeg-léeg sax ñoo xam dañuy ëmbal daw ñu wëri leen waaw léeg gis ku tukki dem Europe am fa doom ñibbisi toog tubaab dañuy yéeg-yéeg rek tubaab bu ñëw tubaab bu sant Diop mbaa Ndiaye ñoo tudd Jean Ndiaye wala Jean Sarr wala Paul Thiam wala Thérèse Tall ah ne la sama pap sama yaay moo ne yow yaay yow yaay sama pap ngay raay dox ci biir dëkk bi waaw léeg-léeg sax mu génne la photo nag jamono yële passé am na benn télévision boo xam ne génne na fi benn femme bu jógee xawma Belgique di wër si papam waaw te tubaab bi war na may 40 ans ku jigéen di wër si papaam fi Sénégal gars yi indi ko er xawma ci télé boobu teg ko muy wax adresse papaam fan la nekk fan la doon liggéeyee mu ngi nekkoon ci ambassade Belgique bu Sénégal ambassade Sénégal bi nekk Belgique moo yoroon restaurant bi doon togg xam kooku rapidement nit ñi dañ koy xam ay quelques minutes am ku téléphoné ne xam naa ko paa baa ngi Thiès bu demee Thiès nangam ak nangam dina gis ay bokkam xam nga loolu garaaw na loolu yëpp li ko waral mooy jalgati tey nit ñi dañuy jalgati lislaam di jalgati sariya bi yàlla wax ñenn ñi dañuy am ay doom di làqatu ñooñu sax kenn waxul seeni mbir ndax moom ñoom nekkuñ ci lu dagan waaye ñenn ñi dañuy am fase jigéen muy ëmb ñu bàyyi ko noonu mu dem dem ak doom jooju ñenn ñi di fase kuy nàmpal ñu bàyyi ko noonu ñenn ñi sax dañuy fase ñoo xam ne dañoo fer nàmpalu ñu nàngam waaye du ñu toppatoo doom yi bàyyi noonu def seen digganteeg ndaw si croix ak xale yi yenn saa yi tamit ndaw si naan xale yi amu leen bàyyi man ngeen fi am di di leen ko nëbb ndax mer yooyu yëpp benn baaxu ci kenn amul droit am ak jigéen doom mere ndaw si bañ nga toppatoo doom ji kenn amul droit mere ku góor ki ba tax nga xañ ko ay doomam kenn amu ci droit parce que xale bi dafa war a am àq ci xam ndeyam xam baayam baayam tamit daf ko war a dundal mais tey ni ñu nit ñi dundal ci sunu réew yi da ngay gis xale yi moo tax looy gis ci mbedd yi démb démb démb la am barki démb ci fajar dañu julli ba pare rek kër gi ñu sës ñu jàpp ñaari xale yoo xamante ne amuñu sax huit ans di sàcc portable fajar wala heure boobu kenn ki daw ñu jël kenn ki yóbbu police xale bi amul sax huit ans ne dañ koy yónni bi ñu ko enquêté police mu ne daara la nekkoon benn waay fàqloo ko mu dem ànd ak waa ji moom it ay at fàq waa ji léegi nekkatul daara nekkul ca waaja ko fàqloo woon di ko bandil di ko jàngal banditisme léegi moom dafa bar daaray boppam te amagul dix ans ah te xale yooyu tey ni ñu bëri ci biir Sénégal am na benn télévision bu ci def ay émission commencé di dem ci corniche yeeg àll yi di jël xale yi di leen récupérer di leen delloo seen kër sang leen ba set solo leen jënd leen ay yére xaw ma commencé ngeen ko setaan di leen delloo mais loolu loolu loolu waruñ ci xaar télé maanaam xale yooyu xale bu toll nii ku fàqee nekk ci ay corniche di fanaan ci ay souterrain ay kër yu pareegul état bi xam ko li nga xam fu ñu nekk ñëpp di leen romb ci mbedd yi ñu tëdd lal ay carton ñu bàyyi leen nungu mais loolu musiba la ci réew nit ki tamit doomam réer ay at doo ko seeti doo ci sonn nga bàyyi ko noonu ba xale bi niil nekk fàq man c'est non mais c'est pas possible ak doom responsabilité yi ci nekk ak doom ni mu mel ni mu neexee ah xale bi loolu la wax police daara laa demoon dama benn waay fàqloo ma ma ànd ak moom mu may sàcc loo di ma def loo yu bon ba quelque temps ma sonn daw léegi di ànd ak keneen kooku laa àndal tey ñu ne ana kooku mu ne daw na moom moom moom comme moom moom moo ci néew doole ñu jàpp ko mais tey laay laajte ñu ne police bàyyi na ko parce que xale la police nu mu koy doyee fu mu koy denc mais ñun dañu waroon yor benn centre boo xam ne dañ leen fa yar centre boo xam ne dañ leen fa yar jàngal leen liggéey jàngal leen diine jàngal leen lépp mal asaf gis nga tey ñu mel noonu ñooñu la chrétiens yi di récupérer yóbbu leen jàngal leen former leen def leen ay chrétien xale yi ñuy sànni xal ci liir yi ñuy sànni ba xale yi fàq seen kër yi band yi xale yi nekk ci ñoom la chrétiens yi dem récupérer ñëw yóbbu leen église defaraat leen yóbbu leen ci ay centre nangam ak nangam jox leen ay lekk di leen jox naan di leen dundal encadré leen di leen yar ba ñu màgg nekk ay ponkali chrétien fekk seen ndey ak seen baay jullit la ñoom xale yi ay jullit lañu woon ba pare baptiser leen de tudde leen yeneen tur waaw parce que ñun comme ñun jullit ji dañoo alku ñun suñu dund dara essayé wuñ dara dara lañ dul essayé suñu dund jéemuñu xeexal sunu diine jéemuñoo fiir ñun daal sunu biir rek doo fi gis mukk ONG buy toppatoo loolu amul amul de yenn ñi nga xam ne sax ñoom dañoo alko ñoom dañuy dem di jël ay orphelin di lekk di genn wàll gépp ñu lekk jox ci xale yi tuuti ñenn ñi ñenn ñi nga xam ne dañ naan dañuy dimbali di ko mbubboo ñenn ñi am na ci ñu baax mais ñenn ñi dañ koy mbubboo mais am na ci ñu baax te ñooñu defuñu lépp am na instant bi li ñu waroon mooy ñu arrêté tabax jàkka yi li ci Sénégal jàkka doy na d'accord ngeen instant yi li ñu waroon mooy ñu arrêté tabax jàkka tabax ay ONG yuy récupérer xale yi di leen defar jàkka yi doy na jàkka yaa ngi fi ne xasar te nit ñi mënuñoo jub mënuñoo baax nit ñi seen julli dara baaxu ci vendredi passé laa nekk min baru juma loolu ku dem déglu ji ci internet bi sama xutba bi passé di nga ko dégg min bar laa nekk juma di xutba portable sonné ci ñi ñi ñi julli si de ci biir juma yi waxuma sax ci biti de ci biir portable bi sonné mu jël allo ah waaw non après ma taxaw di ko déglu ma dagg xutba bi ba mu bare mu fay portable dugal ci poosam mu continué portable du Sénégal mu ne ah waaw waaw ma ne ko sëñ bi doo ragal yàlla nga fay sa portable magum jëmm paa ñëpp naa ko waaye yow dimbali nu ci biir jumaa ji jumaa ji kay dañu mujj di xuloo xam nga ne loolu réere l'islam ak alku weesuwul lool allahu akbar est-ce que xam ngeen ne jugement bu amee salle audience bi procureur bi di toog di àtte xam ngeen portable du fa sonné est-ce que xam ngeen loolu xam ngeen loolu ku ko xamul na ko essayé suba nga dem yóbbu sa portable salle d'audience nga dugg toog ba kii àtte dugg ah nangu nañ sa portable waaw wuy leen kay 3000 nga fay ñu joxal sa portable wuy leen kay nee na nangu nañ portable am 3000 la fay est-ce que xam ngeen ne salle portable du fa sonné est-ce que xam ngeen ne palais portable du fa sonné ah xam nga parce que ñooñu seen yat lañ yor seen i cours islam nag day sànni wala bu ñu leen di kii da ngay am bàkkaar faalewul bàkkaar bi moom yoonam nekku ci waaw da ngay gis ci biir jàkka yi portable di sonné di tere nit ñi julli yéen a ngi gis ku portable am sonné kenn dañ kenn dañ kenn dañ kenn dañ mu coupé wala mu fay ko bàyyiwaat ki koy woowaat woowaat ko kenn dañ kenn dañ kenn dañ kenn dañ mu coupé wala mu fay ko mu bàyyi de ba julli gi di jeex portable bi di amer de nit ñi yow xam nga ne doo wuyu xam nga ne lu moos doo wuyu fay ko ba nga pare mais déedéet julli woo tere nit ñi julli te boo demoon léegi tribunal sa portable la ñemewul sonné yàlla nga yëpp ku dugg ci tribunal day simi mbax nem fay portable am ku dugg ci jàkka danaa léng sol mbax nem waaw yenn saa yi sax nga xëcc ko ba ci say bët di maska wu yàlla wala nga wengal ko ba pare taal sa portable mooy nit ñi lañ ñe lañu la ñu ragal ñeme yàlla subhanahu wa taala waaw lenn saa yi nga gis ku dugg saalu sëriñam simmi mbax nam di nuyu sëriñ bi simmi mbax ne na nguruj ci suuf toog nga dugg tribunal simmi mbax ne bi nga dugg ci jàkk doo simmi sa mbax ne doo fay sa portable fan moo gën a foor ñaari place yi kan moom moom jàkk wa annal masajida liman nan delloo suñu xel noonu ànd ak ragal yàlla bañ a topp seytaane xam ne seytaane moom liggéeyam lay def te ku ko topp alko mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na wal walidaatu yaay yi yurdi ana ñooy nàmpal awlaadahunna seeni doom xawlay ni ñaari at kaamilay ni yu mat sëkk liman araada ñeel ki nga xam ne namm na an yu timma mu matal arradoata namp gi waaye baay ji nga xam ne moom la ñu jural doom ji wa alal mawluudi ñeel na baay ji ki ñu jural doom ji lahu ñeel na ko rizquhunna seen dund seen dépasse wa kiswatuhunna ak seen col waaw seen col seen koddaay mu ngoog an yakuna zakru mu ngoog sunu borom ne rizquhunna seen dundu wa kiswatuhunna ak seen càngaay seen koddaay bil maaruf ci njekk gis ngeen ay semaine bi yëpp aaya buñ jël rek am na maaruf ci njekk kon yow baay ji yaay jaa ngi nàmpal sa doom weeru dee war ngaa ñëw indi dara indaale ay kuusëg ay saaboog ay ordre de ak ay yére bébé daan ne yaay ji ah lii day ngeen jàpp ci jamono neexul waaye lii xëy na voilà su ko defee mbokk yi xam ne yow xolam neex tuuti lu mu la doon bañ bañ tuuti sax wala lu ngeen amoon problème kooku soo ko bëggee jël siwaat day yomb waaw boo joxee loolu ba pare léeg-léeg nga làq benn 10 000 daane ndaw si waaw ah lii day xaw cee kii rek di ci jënd ruy maanaam loolu moom mooy diine loolu lu ñu yàlla wax wala bil maaruf ci njekk njekk lii dama yaakaar ne bu ko yàlla waxul woon sax war war la ci ne jigéen ju yor sa doom yow amoo ci dara ah loolu moo tax tey ko gis mbedd mi jigéen ñaa ngi yor xale yi di yelwaan koo xam ne kii kat maa ko yor gisuma kennam gisuma baayam loolu jaaduwul kenn warul gàddu sa doom loxoom ci mbedd yi di tamba mbaalu ci feu rouge yeeg di yelwaan suñ ko ne waaw yow mu naan gisuma baayam wala di- fa- xale bi feebar mu naan gisuma baayam bu ko faj chaque jour nga gis ku ñëw ci jumaa yi imaam imaam dama am doom bu feebar imaam dama lii imaam dama lële léeg-léeg sax booy ñëw jumaa da ngay daw di nëbbatu ndax nit ñi dañ lay koj léeg-léeg nga gis ku laaj imaam fu mu dëkk ñëw dama bëggoon boo demee jumaa ja loolu dafa ñaaw laa la wax ci jullit di tey dafa ñaaw nga am doom doo ko toppatoo ba yaayam di wër di yalwaan ci mbedd yi di ut lu mu ko dundale ñoom ñaar ñuy ut lu ñu dunde loolu ñaaw na xam nga ban góor moo yéen muy responsabilité boobu waaye na yëg ne yàlla nga koy xaar de kon mbokk yi borom bi nee na bil maaruf ci njekk bi xasba xaalihi yasaaran aw isaaran ni nga mëne rek am nga alal ju bëri daggal leen dara amoo li nga am su weer dee coppati ci yónnee ko wala nga dem waaw nga dem wala nga yónnee am na waa joo xam dafa ñëw di yóbbu dépasse doomam rek ndaw si attaqué ko histoire xam dañoo mere woon ñu dem tribunal ñu dagg salaire waa ji ne ko weer bu dee na nga indi temps te loolu day am de gis nga tribunal bu ngeen demee dañuy dagg sa salaire moo tax man la nit ñi yàlla lañ yëpp bis boo fasee jigéen mu yóbbaale sa doom wala ay doom mu yóbbu la tribunal am nga problème sa salaire bi lañ naan tëppit lu ne na ngay gis gis naa ko ñu dagg salaire am mu démissionné poste ba démissionné la def daan nay du ma du ma ko jox dara jara na ma bàyyi liggéey bi daal di démissionné waaw boobu mu ngi nekkoon benn société bu ñu naan siyaas yàgg na de waaw xam est-ce que boobu juddu nga siyaas ñi fi xam siyaas bariwuñ de ñoo yoroon mbalit mi balaa ñii di ñëw ñi ñëpp siyaas moo fi nekkoon waa ji fa la doon liggéey yor da doon dawal ci camion yi am ak soxna si doom yu bari ñu am problème tas ndaw si yóbbu ko tribunal gars yi woo ko di dagg salaire bi lu bari ndax doom yi dañoo bari mu démissionné poste bi dem ut taxi nekk chauffeur taxi loolu jaaduwul ah ak yeneen ak yeneen ngay gis yu bëri yu dul jeex yooyu dafa ñaaw moo tax nit ñi comme comme comme ndaw si bu demee doo toppatoo doom ji moo tax mu looy bu la tribunal mais bu fekkoon ne bu demee bu weer dee bi mu toogee ñaari yoon ñett ñeent am nga loo coppati ñëw ne ko ah dëgg-dëgg jamono neexut waaye lii xam naa ne sax du dara waaye du la yóbbu mais bu toogee atum lëmm gisu la mu ne kii daf ma yab bàyyee ma xale yu toll nii ah bàyyee ma xale yu toll nii ba pare bëgg a dem tëdd di nelaw yee leen kee mu ñëw ñu wax bàyyi jigéen ñi mu toog foofu wala mu yéeg fii ci kaw fii jigéen ñi mën nañoo toog fii ci kaw fii fii ci kaw waaw fii la jàkk jigéen ñi wax ko mu yéeg ci kaw xoolal fii nii ci biir kër gi waa ci escalier ah ah xoolal fi ma jàkkaarloo nii ci kër gi ngay jaar toog noonu waa foofu noonu waa mooy jàkk jigéen fii nii waaw ci kaw jàkk jigéen yéen a may dégg yooyu yëpp lu koy waral diggante góor ak jigéen soo gisee yenn saa yi ndaw si dala yóbbu tribunal mooy nga bàyyi ko ngay doom tribunal moom boo demee ñu dagg sa salaire waaw waaw dagg kay kon nag nit ñi yàlla lañ yab yàlla lañ yab waaye yabuñu tubaab bi da ko moom mboldeem la yor yab waaw boo dof dofloo rek mu dal moo tax yabuñu ko amaa yàlla mi nga xam ne mbir mi ëllëg la du tey moom lu leen neex def jalgati waaye ëllëg lu jar a seddoo la parce que moo ngi ñëw borom bi ne laa tukallafu togguñu nafsun bakkan illa wusaha lu dul ndare ni mu ko mënee gis nga maanaam yow ni nga mënee ci dundal xale bi ak joxe dépasse ak kordaay noonu nga koy defee noonu nga koy mënee du yoon du jaadu nga nekk borom alal bu mat sëkk weer dee nga yónnee ay 5000 ak 2500 te ñu xam ne yow dëgg-dëgg mën nga lu ëpp li jaaduwul te nga xam ne ndaw si li nga ko yónnee ni mënu ci jënd sax saabu wala lu muy bàccale xale bi wala mënu ci jënd kuus kon lu jaadu mooy yow ni nga mëne nga defe ko noonu ki nga xam ne mënul it mu coppati li mu mën joxe kenn ku nekk rek fal yunfiq zu saatin min saati kenn ku nekk ni nga mën a joxe noonu mu ngoog suñ borom ne laatu kàllafu togguñu nafsun bakkan illa wusaha ndare ni mu mënu taaqataha wa ma tuqaddaru alayhi ni mu ko mëne ak liñ ko sant waaw ne la loolu mooy doy yow ni nga ko mënee ba pare yenn saa yi ndaw si ne la ah mën nga maa jëndal weer wu nekk benn paquetu couche paquet bi temps lay def soxla naa saabu soxla naa eau de javel soxla naa lii soxla naa laa soxla naa laa est-ce que mën nga ko nga ni ko waaw su boobaa yow ni nga ko mënee nga joxe ko noonu su la nee lii ak lii ak lii ak lii ak lii weer bu nekk lii la mënoo ko nga ni ko waaw mënuma loolu de waaye bu soobee yàlla dinaa ci góorgóorlu sama kem dalaay kàttan li ma mën ma indi wala salon jamono ni muy neexee su weer wi neexee nga indil su weer wi naqaree nga xaw a noonu rek lay demee yàlla nag xam nga xam na yow bu fekkee da nga ne mënoo yàlla xam na su fekkee da nga ne mën nga yàlla xam na moo tax jullit nit ñi bu ñu xamoon li nekk ci jullit jàmm rek am parce que jullit doo fen doo tricher doo dem di wax lu dul dëgg mënuma ko te mën nga ko te nit ñi tey loolu la ñuy def fas jigéen ñu ne la temps nga koy jox weer bu dee moog doom ci nga ni mënuma ko te yàlla xam na ne mën nga lan moo tax mooy mere ko moom tamit nàmpalu ma xale bi dara fii laa koy bàyyi ñaata jigéen ngeen gis ñu fase ñu sànni liir ba dem ñaata du jaax ñoo xam ne fekk liir bi mu ngeeg sax 2 mois 3 mois ñu ne ko cundung dem waaw du ma la nàmpalal man du ma san ba pare dañ joñ ceem ba pare dañuy saaga du ma san nangam araam boo xam ne maa la koy nàmpalal util ko ko nàmpal bu defee waa ji jël doom ji yóbbu ci yaayam am naa sama xarit boo xam ne oustaz la noonu la ko waa ji ndaw si def bi ñu tasee rek ndaw si da ko ne xoolal sa doom mi ngi nii ci kër gi maa ngi nii dem sama yoon fekk xëy na de mu ne ko mi ngi nii may teg ci diggi néeg bi lu ko fi dal yow la maa ngi dem waa ji daw génn classe bi kay jël oto ñëw fekk xale bi di uweey ci biir ci diggi néeg bi nga loolu garaaw na léegi doom jooju mu màgg ëllëg yéen ñaar ngeen daje yaay yaayam wala yaay papaam ngeen daje te yow yaa ko defoon lii
mu tekki nag
nga ne fa leen ah wala am na paa yu bëri ne ci kër yi da ngay waaru ak maire yu bëri ne ci kër yi seen doom yi mënuñu leen respecté te nag da nga yaakaar ne loolu xale bi du ko xam dañ ko koy nettali dañ ko koy nettali yow maa nekkoon ak yow gis nga sa baay seen baay da leen a bañoon nga dégg maire yi di ko wax maa nekkoon ak yéen di jaay di jóg di daanu di langar langar yi ba tey ngeen tekki waaw waaye seen baay su ngeen demee tey nangam nangam wala gis nga nga dégg nga déjà dégg nga wala bu dee paa bi mu ne la seen yaay fii la leen bàyyi dem yoonam maa ak yéen maa leen doon sang maa leen doon kuus maa leen doon maa leen doon maa leen doon bu ngeen doon jàngi sax maa leen di boot ba école te maay seen baay yooyu yëpp dafa jar a bàyyi xel mbokk yi ma ni du hasard yàlla di ñu jàngal lii gis ngeen lii lii nag lii wax naa leen ko barki démb ak barkaati démb lii bu ñu bàyyee ba nit dee ñu ñëw naan ko walwalidatu yurdina awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma arroda ñeneen ñi toog fee naan amin ana ñaan bi li ay luwaa la alquran ay luwaa la barka avant ñu ngi doon jël lan lañ yàlla doon jàngal atte deretu jigéen ñu jógee fa yàlla dugg ci fase semaine bi yëpp ñu nekk ci tey ñu génn ci yàlla di ñu wax atte jigéen bu ñu fase muy yóbbaale doom ji wala mu ëmb kon alquran li ñuy wax bis bu nekk te duñ ko bàyyi mooy aw dundin la wu nit ñi di dund nekkul téere boo xam dañ koy barkeelu waaw am naa benn kaamil ma xool nga ubbi ñu ne nii raay diw ci kanam ak jërëjëf waay kaamil bind bi rafet na de daal di jël raay diw sa kanam wala nga teg sa armoire boo xëyee pompe daa teg wala nga teg sa oto boo xëyee raay teg ko ci oto bi ci kanam wala ci ginnaaw naan day aar oto bi wala armoire bi alxuraan bi du pour oto bi yàlla wàccewu ko pour oto bi wàccewu ko pour armoire bi wàccewu ko pour kër gi yow mii la mu yaa tax yàlla wàcc ko pour nga xam li ci nekk nga xam foo teg sa tànk atte yi nga bañ koo jalgati lan moo tax tey réew mi ñuy jalgati atte yi foo dem gis jigéen ñuy jalgati góor ñuy jalgati ndaw suñu fase mu teg doom ji léegi waaw da koo bootoon de waaye da koy wàcc xale bi di yuuxule mu teg wane ginnaaw allahu akbar wane ginnaaw lan la ko xale bi def dara parce que dafa mere papa ji wala papa ji tamit kazalik léeg-léeg mu mere yaay ji xëy bañ a joxe dépasse ne fes dem yoonam kër gi ñi yendu ba ngoon kenn du togg añ ndeysaan am na benn jigéen dafa am ak problème jëkkëram ca tugal la leen booyee nag bëgguma ko wax parce que su ma ko waxee ma comme moom dafa may déglu dafay xam dafay xam ne moom la naa bàyyi noonu rek dina xam waaye ba jëkkër ji ne ko xëy rek ne ko fase naa la waaye xam nga lim def génne oto yi ci comme France moom jigéen a fa ëpp doole góor France jigéen a fa ëpp doole góor de mu jël oto yi yóbbu yemu ci mu dem dagg compte banque bi kër pour ndaw si doos fa mën a tiire xaalis moo xale yi ñu dund dem yoonam loolu jaaduwul ni naam yërmande ci ay doomam naam yërmande ci soxna su mu nekkaloon yow koo xam ne dañ la ne ah même boo ko takkul sax war nga koo dimbali kon bu ngeen séqee ay doom nag moo tax gis nga chaque jour ci ci ci ci fase ak lii yàlla maaruf lay wax njekk daf leen ko ci njekk kenn warul fase sax fase bu ñaaw parce que suba moo tax te suba alof yi dañuy wax ne ëllëg du añ du reer waaye lu mat a sédd la waaw bëri na fi ay xale yoo xam ne boo leen ne paa bi ñu ne waaye paa bi kur waay waay paa bu nangam bon waaye yow saaga ay góor xale yu góor lu tax parce que mosuñu xam seen paa am na fi xale yu góor yoo tamit boo leen ne seen yaay ñu ne waay meer bu waay gis nga lu ko waral mooy tàqalikoo bu bon kenn du ko def kii nga bàyyi tey ci kawlal gi nga dem day màgg suba ku la ne mënut a nekk président de la république ku la ko wax ah ku la ne mënut a léegi nag yow nga langar langar yi ñëw nag bàyyi ba nga dégg yow yow yow xam nga ki ki ñu fal léegi président xam nga ko nga naan déedéet ah naa yow sa mooy sa doom ja nga daanu ci suuf di bërëngu dem buntu pale di di di bërëngu loolu ñaaw na ah di ñaan audience waaw te mu nga xam ne yéen yéen ñaar waroon ànd ba nga tagal ko mu tàllal loxo yi ne la papa ñaanal ah loolu jaaduwut de jaaduwut de dañu bàyyi xel ci li ñuy def bu ñu meree bu ñu topp seytaan ba dugg ci giraawaali goo xam ne tooxi doona goo xam ne ëllëg ak si biir dañ ci bëgg a génn mu tëñu tëcc kon lépp suñu borom subhaanahu wa taala daf koy wax ñu def ko ci njekk wa kiswatuhunna seen koddaay bil maaruf ci njekk mu ne laa tukallafu togguñu nafsun bakkan illa wusaha ndare lu dul na mu ko mënee mu ne laa tudaara bu mu lor waalidatun yaay bi wala di haa ci doomam yaay bu mu lor doomam loolu naka la koy lore yaay naka lay lore doom ji ah yaay ji naka lay lore doom ji mooy ñu fase ko mu ne nàmpaluma ko lor na xale bi waaw ñu fase ko rek dafa xaw yoroon doom di ko nàmpal mu daal di tekki doom ji waaw teg bagage yi yëpp ci suuf jël ay bagage am moom ñu ne ko waa xale bi nag mu ne ah xale bi ana papam ñu ne ko yaay yaayam mu ne waaye am na baay daal di wane ginnaaw xale bi di wéeku keneen jël ko di ko toppatoo keneen jël ko di ci sonn ba bis nag xale boobu nga sànni woon daal ne lëng taxaw nga ñëw di xëma ka ximmil ximmilu ko yuuxoog ak yooyu yëpp amul benn njëriñ li nga def histoire bind na ko ba pare yow bi ñu la fasee da ngaa sànni sa doom dem waaw loolu histoire bind na ko kon laatu daara bu mu lor ah waalidatun yaay bi waladihaa ci doomam laa yaxillu du dagan an tuzi mu lor ummun yaay alwalada doom ji bi manihaa ci tere ko minal irdaai ci nampal gis nga dafa am àq ci yow dafa war a nàmp soow mi nekk ci yow moom moo ko moom kon amoo droit di ko ko xañ bi waladihaa ci doomam aw bi maniha wala mu koy tere al ujratu fay alal irdaihi ci ala irdaihi ci ñi nga xam ne ñoo ko doon nàmpal hada fi xaali talaaqiha lii nag ci jamono fase la aw mawti zawjiha wala jëkkëram faatu ndaw si jëkkëram mën naa faatu mu ne dootuma nàmpal xale bi ndaw si mën nañ ko fase mu ne dootuma nàmpal xale bi ñoom ñaar ñëpp baay jeeg yaay ji kenn amul droit lor doom ji ci jamonoy dund ci jamono dee léegi nag mbokk jullit yi su fekkee ñun ñooy ay jullit alquran bi ci ñun la wàcc te ñun fas yéene wu ñoo dund alquran bi liñ ko fas yéene deer def rek mooy téere barkeelu ku tabax kër ba pare balaa ngay toxu nee nañ ma jàngal kaamel ku dee balaa ñu lay suuli wala bu ñu la suulee ba ñëwaat jàng kaamel ku tiit ñu la war laa audité nga tiit nañ ma wàcceel kaamil ah fekkee ne lii mooy téer alxuraan ku ragal dee ci accident daal di jàmb aaye di naan ak sangu wala ku wala ku rek fekkee loolu rek mooy tax mais alxuraan bi atte yi lan la fas yéene wuñ koo xam ku bëgg xel mu neex ñu ne la jëlal alam nasara nga boole koog lem jàmb naan ku bëgg lu la aar ñu ne la bindal ayatul kursi ku bëgg lu ñu ne la defal rek ñun daal takk naan ak barkeelu rek waaye fas yéene wuñ dund aaye du dem du dem moo tax gis nga dëkk bi demut te lii ñu lay wax ni kenn ku nekk ci ñun fii ñàkkul fu mu ko gis wala fu mu ko dégg wala sax mu dal ko wala sax mu dal ko laa wax kenn ci ñun ku toog fi ñàkkul loolu dal ko loolu dafa ñaaw rafetul yàlla santaanewu ko yàlla ay àtte la indi ci dundam suñu dund yàlla ay àtte la indi ci suñu dund pour ñu war ko dund mooy alquran bi ci nekk ak tàqalikoo dund ak dee ngeen di dund ngeen tàqalikoo yàlla tëral na nu ngeen di tàqalikoo nga dee wala mu dee yàlla tëral na lu ngeen di tàqali kowe xoola nit dee sax balaa muy tàqalikoog jëkkëram foog mu am ñaata ah 4 mois 10 jours affaire bi di doog a jeex takk gis ngeen kon du lu ndaw nga fase ko mu dem ñu ne foog mu toog 3 mois mu gis direct 3 règles bu dee du gis règle ñu ne foog mu toog 3 mois bu dee dafa ëmb ñu ne foog mu am doom kon mbir yi ay atte la buñ dem rek di jalgati di dem waaw day gis jigéen ñu fase nit takk ko ñu toog quelques mois ndaw si am doom ñaari parents yi di xëccoo kee ñëw indi xaram kii ñëw indi xaram maa ko jur maa ko jur coow li ne kur xale boobu ëllëg nan lay taxawee ci kanamu nawleem ñu naan ko doom ju am ñaari baay ah te loolu yàlla indi na ci atte ndaw si bi muy dem waroon naa wax ne dama ëmb mais mere bi mu mere waa ji xam naa ne dama ëmb de waaye bu soobee yàlla dina dina perte doom ji dem jox ko beneen baay ku ko jurul loolu yëpp tey dañ koy gis ci suñu dëkk mu nekk lu ñuy dund bu dégg ba cëg di ko dégg mu nekk lu ñaaw te lu mënoon a ñàkk la parce que yàlla da cee indi ay atte su fekkoon ne lii yëpp yàlla waxu ci kon ñu xam ne mën nañ koo def waaye yàlla da cee wax kon kenn amul droit di jalgati li yàlla wax chaque jour bu ñu jàngee aaya yi ba aaya di jeex lan la yàlla di wax wa tilka hududullah fala taataduha lii mooy aaya yàlla yi lii mooy frontière yàlla bu leen ko xët gis ngeen borom bi nee nañu laa tudaara bu mu lor waaw bu mu lor de waalidatun yaay bi waladiha ci doomam wala mawludun lahu du ki ñu jural doom ji moom it bi wala di ci doomam gis nga ku jigéen ki niñ ko waxee amoo droit lor xale bi noonu lañ waxee baay ji amoo droit yow tamit lor xale bi kenn ku nekk mën ngaa lor naka la yaay di loree mooy bañ a nàmpal ah bañ a toppatoo bañ a sang bañ a faj bañ a bañ a bañ a bàyyi nu muy loree bañ a joxe dépasse bañ a seeti bañ a nemmeeku bañ a reconnaître fa sa ndaw si muy dem ne la ah maa ngi dem mais dama ëmb nga ne ko merde sama yoon nekku ci ndaw si dem ñu ne la am na doom nga ni juruma doom ji juruma ko ñu ne juróo ko nga ni juruma ko juruma ko gis ngeen am na benn xale boo xam ne bi ñuy fase yaayam noonu la woon ndaw si ne ko dama ëmb mu ne ko sama yoon nekku ci merde ndaw si dem moom tamit am doom daa di bind jëm yóbbu xale bi utal ko di ko utal bulletin daa di bind turu xale bi daa ci def santam moom ku jigéen ki santam la ci def waaw ñu ne ko lu tax mu ne du nee na jur ko man maa ko jur comme maa ko jur ma def ci sama sant man waaw xale bi bulletin naissance am muy jàng war a def examen bac turu papaam nekkul ci place bulletin bi yaay kese la am ñu koy nëbbu bulletin bi xool loolu nu mu grave te li ma leen di wax fii ci Sénégal yu mel noonu yiñ ciy xam yiñ ñuy wax sa nopp day booy ak yiñ lay woo ay bu bëri bu bëri mais lu ko waral mooy dunduñu alxuraan lu waa tubaab bi moom normal parce que tubaab bi mbool da la yor boo bañee rek mu ne la ko rul am maay lu waa yàlla nag sama yoon merde xam loolu ngay wax waaw jalgati rek jigéen ñi jalgati góor ñi jalgati te yàlla dañu ne kenn amul droit lor doom ji doom ji lu mu def mu ngi mel ne ko jigéen da ngay gis léegi jigéen ji ñu ëmbal mu rey xoj xale bi xoj ñii di dugal ci ay force ñii di takk ci ay ay perméable di étouffer xale yi la ilaha illallah su ngeen demee internet bu ñu leen wonee xale yi ni ñuy rey sa yaram day daw ñii dañ leen di lakk ñii ñu leen di dugal doo fàtte asalem Paris fi ñuy tuur mbalit mi benn waay xëy na di liggéey di dajale mbalit mi di dajale dajale mbalit mi ba pare taal dem ba ñu am lu ci des tuuti muy xëcc rek gis benn loxo xale ni nii rek waa ji daw yuux tuuti mu dof genn wàll parti xale bi yëpp lakk na loxo ci des waa ji daanaka fala pare ci mbay moom liggéeyatu dafa mel ne ku dof di yuuxu di bërëngu nit ñi ñëw mu ne leen mbalit ma nit ñi ñëw gis xale bi téléphoné police téléphoné sapeur ci benn mbuus bu bële la ko xa- yaa ji takk ndaw si takk loolu du jeex tey ñii dañuy jur xoj ñii di waññaar bopp di lem waññaar ni ba mu tàqali ko laa ilaha illa allah te alquran ne ëllëg yowmal qiyaam wa izal mawudatu suilat bi ay zambin qutilat xale bi lan la def bi ngay dajeek papaam ngeen di dugg ci mbaar yu yàqu yi di dugg ci kër yu pareegul yi dugg ci oto yu yàqu yi yu gaare yi wala ngay nëbër di sa fenêtre wala ñu lay aj ci tabax yu pareegul yi ngeen nekk ci mu neex lool xale bi juddu tey lu mu def xale bi lu mu def au contraire yéen ñaar xale bee leen waroon poñe mais nga juddu rey xale bi ba pare xam nga lu ci garaaw da ngay rey xale bi ñu jàpp la yóbbu la police ñu jëlee la avocat naan noo xale bi bi muy juddu deewul ak aman na allahu akbar la ilaha illa allah avocat sénégal yi ñoo ñeme yàlla ñoo ñeme yàlla nit rey nit mu leer na da ko rey nga naan ko non nga taxaw sol sa rob non xale bi bi muy juddu femme bi dafa juddu dafa xale bi dafa juddu indiwul doom moom it xamul nu mu koy def mu gas suul allah lu tax bi muy juddu demul hôpital loolu lañ ko waroon njëkk a wax lu tax demul hôpital xam nga naroo jàmm ah bi nga demulee hôpital rek waroon nañ xam ne yow yaa ko rey fi mu nekk nii sa jabar buy am doom ci kër gi nga toog naan da nga koy assister te doo ko yóbbu hôpital ba ndaw si dee wala xale bi dee bu bu police ñëw lu ñu lay def lu tax kii moom def ñu ko noonu mais di ko jëlal ay avocat avocat yi di ko di ko aar non reyu ko xale bi judduwul wala nangam nangam wala kërti kërti fii wala bi muy juddu c'est que moom dafa tiit musul am doom xale bi daal di daanu doole daal di dee ah ñu ne léegi waa tëj nañ ko kon un an un an nga rey nit ñu tëj la benn at l'islam mooy dëgg bu doon l'islam la leen yóbbu ba stade dagg sa bopp bi bu soobee yàlla dëkk bi kenn du ko def xoolal màkka li yi am ni Sénégal di ngeen du ngeen ko dégg màkka màkka bu la neexee léegi nga tëdd fi fanaan fi njege naa sa 2 millions ak say portable ak yëpp xam nga lan mooy problème ku ñëw dinaan la yaa ngi baaree yoon bi de pusal nii sax sësal dañ lay wax de waaye jël li nga yor allahu akbar mbokk yi il faut ñu jéem a dund l'islam loolu rek moo ñuy may jàmm ci kaw suuf dund l'islam kese amuñu leneen bu ngeen changé Senghor changé Ablaye Wade sama ma changé Abdou Diouf changé Ablaye Wade di ngeen changé keneen te nii rek te ku ngeen di changé rek ci xol bu tàng ak mer ngeen koy changé te gars yi daas fanaanal ba kañ dinañ dem ba Sénégalais yi 12 millions yi ku nekk di nga nekk président ngi essayé te du dem xam nga lu tax du dem du dem parce que yàlla li mu wax moom lañu bañ a def du dem jëlal fas bi nga jël saret bi teg ko ci kanam nga jël fas bi teg ko ci ginnaaw aca day dem lu tax du dem xam nga lu tax de yow yaay nekk ci kanam ne da ngay xëcc saret bi demal xëccal tuuti loo gudd gudd un kilomètre ngay xëcc taxaw waaw ah léegi nag comme loolu la comme loolu la coono du fi jóge inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta atte yàlla yi bu ngeen bëggee bu ñu bëggee ñu dund ko dañuy seet ñu nga xam ne gëm nañ ko suñu leen falee ñu def ko ñu fal leen waaye bu ngeen falee koo xam ne danaan atte yàlla kenn du ko wax ci assemblée bi atte yàlla kenn du ko wax ci ministère yi kenn du ko yóbbu tribunal atte Jean ak Paul lañ fay indi atte Jean ak Paul ñun arrangé wuñ parce que ñun lii lañ bëgg a dund lii waaye bu ñu nee ne Jean ak Paul ñëpp yàlla yërmande ndax yàlla moom day dagg loxo day cawaate waaw yàlla ñi muy dagg seen loxo mooy bandi yi ñi muy caw mooy saay-saay si tey jii Sénégal xoolal problème bi ñu am ay milliards la ñuy wax lañ sàcc ay milliards ñoo réer Sénégal ay waxuñu million de milliards yéen ñi jàng milliards ñaata la ah 1000 millions allahu akbar 1000 millions fi mu nekk ko am di ko di ci dépasse bis mu nekk nga génne 50 mille ñaata at ah 50 ans ah 50 ans de allahu akbar bis mu nekk nga dépasse o 50 mille ah ñaata at 50 ans du jeex léegi nag comme dunduñu l'islam moo tax ñooñu dañuy sàcc milliards yi ku toog rek waxuma la nga jël benn xam nga be loolu rek doy na benn doy na mais nga jël yu bëri ba doo xam noo koy def nga dem sa kër gas benn fosse defar ko ba mu rafet climatiser ko dugal fa billet yi boo xëyee rek toog jàkkaarloog milliards yi ndeysaan di ree rek tekki di yuux ni julli di nekk nii di ndóol julli ñi nekk nii di torox ah metti na de ah ñun ñoo ko rek ñoo ko rek suñu bopp buñ fa tegoon ñoo xamante ne kenn ku nekk fistine doo ko ci jël fistine fistine parce que xalaat nga ëllëg di nga taxaw ci kanamu yàlla yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin gis ngeen Omar ibnul Xataab Omar ibnul Abdul Aziz bañ ko falee mu jiite jullit ñi dafa toog réunion ba pare ak jullit yi jullit yi génn mu am gan mu fay lampe bi kan ngi ne ko ah ci lëndëm gi la ñuy réunion man ak yow mu ne ko waaw mu ne ko làmp bi nag mu ne ko pétrole jullit yi la xaalisu jullit yi la te man ak yow suñu problème la ñuy wax soo gisee sànq ñu taaloon ko boobu jullit yi problème réew mi la ñuy wax léegi nag man ak yow suñu problème la ñuy wax kon amuñu droit di niitool pétrole lu jullit yi mu fay ko waaw waaw mu ngoog ñooñu dañoo ragal yàlla waaye bu ñu jëlee ñii nga xam ne ragalul bu ñuy waat sax dañ naan je jure ci lan ci lan nga wala la waajal lan indi ñu alquran indi ñu bible xoolal président Égypte bu bees bi alquran lañ ko tegal waaw Mohammed Mursi alquran lañ ko tegal mu yëkkati loxo ndey jooram ne ko tàgge ci kaamil bi daan ne maa ngi giñ ci màggaayu yàlla dinaa doxal dëkk bi dëkk bi ci dëkk loolu mooy diine alquran gars yi moom am na benn waaye benn président bu doon wax waat ci alquran jamais man ay way du ma waat loo kenn ci alquran parce que xam nga ne doo jubal lu ñuy ragal ci alquran kon nag mbokk yi démb kër gi ma ndogoo xale bu góor bi fa nekk di ma nettali jamono bi ñuy def bac nee na dafa amoon seen classe benn problème mook benn xale comme bokk ñu tariixa moom dafa gëm sunna xale bu góor bi gëm tariixa ñoom ñaar ñu am problème ñu ne léegi dañuy dem jàkka waat ci alxuraan kan moo nekk ci dëgg ñoom ñaar ñu jàpp kenn ku nekk ci ñoom jàpp ñu dem ci benn jàkk ñu dugg def seen ñaari rakk ki ma doon nettali wax ji nee na damaa waat ci yàlla jël sama loxo dóor ci alxuraan ne lii ma nekk bu dee du dëgg yàlla bu ma am bag keneen ki tamit daal di ñëw daal ne lii ma nekk bu dee du dëgg yàlla bu ma am bag nee na année bi jeex ñu def seen examen moom mu am waa ji amul waa ji nekkaat fa defaat amul waa ji nekkaat fa defaat amul waa ji nekk fa def amul ba cinquième fois waa ji doog a am daal di koy lancer message ne ko enfin am naa mu ne ko enfin sa waat ba ndax waat ci alxuraan ñii xam nañ lu tax duñ ko def li moo tax ñu war a dund alxuraan parce que alxuraan mooy dëgg alxuraan mooy dëgg leneen lu alxuraan du dëgg du dëgg dañuy nax rek wallahi dañuy nax bu leen yaakaar ne li ñuy ngeen am fii dañuy changé réew mi de duñ ko changé du changé de changé de du changé de assemblée bi wàññi nañ ko ah ñaata député la ñaataa fa nekkoon Sénat waa ngi ni duñ ko tas ministre yi duñ ko wàññi ay pexe la ñuy def rek ay poche di dugal ñun ñun ñoo nar a alku rek bu dee boo nag kon ñu yeewu Sénégal yeewu jot na de dëkk yëpp yeewu nañ ñun rek ñoo des ñi nelaw ñëpp yeewu nañ waaw ñëpp a yeewu diine rek moo mun defar àdduna bi te diine su ma ko waxee mooy lislaam mi ngi ni ay àtte la ñuy yàlla di indil xoola yàlla ci biir kër la tàmbalee kër li ñuy jàng semaine bi yëpp kër la fase kër la deret kër la nàmpal nii kër la xoola ku rek la problème mu kër ba kër gi na cocc mu doog a dem ci état bi régler dëkk bi di ngeen gis ci kanam tuuti ci dëkk bi lañ jëm kon diine jooju kay waruñu ko tegal bàyyi ginnaaw diine ji régler lépp régler ba régler problème mu liir liir bi liir bi liir bi mu ngi ci biir yaayam ju doogul yàlla di régler problème am naan waruñu koo tooñ mu judd nekk liir yàlla naan waruñu koo tooñ ndey jeeg baay ji waruñu ko tooñ même moom da dañ ko war a jox droit am ba mu mat ci ñoom ñaar ala kulli haal lu leen mën a dal lu ñu mën a jàpp kii yoonam nekku ci nañ ko jox droit am xoolal kii kii est-ce que kon bu màggee dinañ ko xañ ay droit am comme bu mu nekkee liir la yàlla ne nañ ko jox droit su demee ba màgget est-ce que dinañ ko xañ droit am déedéet mooy tontu bi mbokk yi suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa alal waalisi mislu dalik ki nga xam ne mooy donn aussi lu mel nii lañ ko sant kan la alwaaris huwa arradi mooy xale bii nàmp gis nga xale bi warul lor in kaana lahu maal bu fekkee dafa am alal wa illa fa ala man yakfuluhu min asobatihi bu fekkee ne amul ñi nga xam ne ñoo yor xale bi ci fameem lañ bokk ñooñ ñoo war a financer ki koy nàmpal jox ko lépp jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla fay gis nañ gis fan yi ma dara jërëjëf yàlla yàlla barkeel li des jazakallahu xeyran borom bi subhanahu wa taala mu ne ki nga xam ne moom mooy doon alwaaris ñu ne huwa radi mooy ki nàmp aljumhur ñu ne ala anna almuraadu bilwaaris warasatu radi mooy ñi nga xam ne ñoo yor ndono gone gi waaye li wér mooy ni aboubacar jabir aljazair firi alwaris te mu ne mooy arradi kii nàmp nafsahu moom ci boppam moom la yàlla wax in kaana lahu maal bu dee am na alal kii nàmp nan lay amee alal kii nàmp ni muy amee alal su bàyyi ji faatoo bàyyi ko alal ju bëri kon ki koy nàmpal dañ ko war a fay xam ngeen bokk na ci aadaay arab bu ñu amoon doom dañuy yóbbu seen doom ci dëkku arab ya ca kaw ga ñu koy nàmpal ndax la ca nekkoon ci ay njëriñ ci dégg arab bu leer set wicc xam nga ba léegi fii ci Sénégal xale yi nekk kaw ga ñoo gën a dégg ñu nekk Sénégal ñu nekk Dakar olof ah waaw mu nga waaw du développé ñoo gën a xam ñoo gën a dégg ñoo gën a ñeme ñoo gën a yaru lépp waa àll bi ñoo ko gën a yii waaw waa àll bi moo taxoon ñoom bu ñu amee doom ñu daan koy yóbbu waaye nag ki lay nàmpalal da nga koy fay leen di waxaale gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu juddoo dañ ko dañ ko dañ ko yóbbu màkk dañ ko yóbbu màkk jigéen ñi giiru saadiya ñëw di seet si kan la ñuy nàmpal comme moom papaam daa gaañu yaayam amul mbokkam yi amuñ ñu ñëw jël xale yépp bàyyi ko fa xalima bi mu ñëwee ñu ne ko ah ngoney mis ngones miskin sa dee fa des ngones miskin sa moom it mu jël ko ngir ñàkk pexe rus naa dellu ànd ak ay nawleem ñépp am ku ñu nàmpal moom cundug mu ñëw amul ku mu indi mu ne ah comme kii fi sës xaaral ma jël yóbbu waaye ci yoon bi la commencé yëg ne ah changement ci yoon bi ci waruwaay bi mu waroon mbaam ma walla fas ba ni mu doon ñëwee li taxoon mu tardé ba jëlul mooy mbaam mi daa yooxoon walla fas bi dafa loroon loof waaye ca dellu ba moo njëkk ñëpp foofa la njëkk commencement seetlu ay fan ci kër gi jur yi tool bi kër gi yépp naat ah mu xam ne kon man ndeke kii ma indi am na lu ci nekk rawatina nag keroog ba xale bi demee fo yi ànd ak ay moroomam yi ñëw ne ko am na benn góor gu sol yére yu weex tal gu ko jàpp fële mu daw ñëw ndeke jibril la moo ñëw xotti dënn bi daal di génne xol bi raxas ko ñaari yoon la ñu raxas xolu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam raxase ko ndoxum zamzam kon mbokk yi wa alal waarisi ñeel na ki nga xam ne aussi mooy donn mislu dhalika comme loolu moom tamit mooy bu fekkee ne baay ji bàyyil na ko alal in kaana lahu maal fekkee am na alal nañ ci génne dépassé fay ki nga xam ne moo koy nàmpal bu fekkente ne baay ji bàyyiwul alal mbokki xale bi mbokki xale bi ñooy financé côté baayam léegi nag jigéen góor daf koy financé suy nàmpal di ko jox dépasse di ko jox koddaay pour doom ji léegi nag bu ñu demee baay amul wala baay nekk fi kan mooy financé mbokki baay su mbokki baay amulee mbir mi day këpp waat ci kaw ndaw si yaay nàmpal sa doom kenn du la fay parce que yow dong yaa fi nekk ci ndum mais xam ngeen droit bi Sénégal moom duñ ko appliqué Sénégal seen yoon nekku ci moom fase nga jigéen sa yoon nekku ci ah fase naa ko waaw mbaa yaa ngi toppatoo xale bi aw ma toruma tous laa ko joxul yaayam a ngi foofu na ko toppatoo loolu du diine de yéen a ngi nii toog ku ci fase jigéen mu dem yóbbu sa doom na nga xam ne yow yaa war a yor nafaqa bi yaa ko war a dundal yaa ko war a woon bu feebaree yaa ko war a faj ordonnance bu ñu la ko jëndalee bu ko dugal ci ron lal gi de dama nga jëndi ko parce que sa doom moo feebar war a faj waaw léeg-léeg nga gis koo xam ne ordonnance yónnee na la ko nga gàddu ko fukki at léeg-léeg nga gis góor goo xam ne dañ ne la sa doom def feebar ngay langar langari bañ a dem sa doom def feebar ñu la yónnee ordonnance dafa feebar nga bañ a dem ba bis ñëw ñu ne la xale bi dee na de nga am gàcce nag noo fay demee. noo koy suulijee nooy taxawe ci mbir mi nga am gàcc nga ñëw ñëpp di la xool bëtu jéppi la nga ñëw di lay di fen di dugg ci kenn xamul fekk li ngay wax dara du ci dëgg yooyu jullit da koy moytandiku mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa in fa in araada fisaalan ñoom ñaar bu ngeen demee ba bëgg a feral xale bi fa in araada bu nu namee fisaalan fere ko mooy fa taaman lil walad qabla nihayati l aamayni da ngeen ne woon ñaari at la xale bi nàmp ngeen dem ba caag ngeen ne léegi baax na bu mu nàmp ñaari at at ak genn wàll baax na lan la yàlla wax diisoo bu ngeen demee ba bëgg a feral yéen ñaar lu ci war ah fa in araada fisaalan bu ngeen bëggee ba bëgg a feral an taraadin na ngeen d'accord minhuma ci ñoom ñaar wa tashaawurin ak diisoo na ngeen diisoo na ngeen d'accord après ngeen diisoo waaw mu ngoog laa tudayiq wala xaraj in araada al mawludu lahu an yastardi li waladihi mu ngoog kenn ci yéen bu mu lor keneen ki na ngeen diisoo yéen ñaar am toroodin ngeen d'accord minhuma ci ñoom ñaar wa tashaawurin ak diisoo su boobaa bu ñu demee ba d'accord ñu ne léegi mun nañoo wàññi at ak genn wàll wala nañu mottali ñaari at yi su boobaa fala junaha alayhima bàkkaar amul ci ñoom ñaar parce que d'accord nañ beneen problème am na fi ci nu ñuy jalgatee islam mooy feral gis ngeen xale yi ni ñu leen di ferale Sénégal da ngay gis xale bu ñu feral mu jële ci feebar jële ci xiibon jooy ba wow koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ koŋ lu tax xale bi ñaata weer muy nàmp ñaata at muy nàmp ah nàmp na at ak genn wàll nga xëy benn bis ne ko dootoo nàmpati benn bis tey ñu dagg ween bi yenu xale bi rek yóbbu ci benn sëriñ waaw yóbbaale kilo mburu wala yóbbaale dara mu daal di daal di koy tëbli ci mburu mi ne la bu lekk ci mburu mi wala ñu ne dalal la bàyyil soow wala soowu nit ñu ne bu la nee bàyyil soow soow soow bii sax dootoo ko naanati Sénégal ak ñoo bëri caaxaan ñenn ñi moom dañuy jël daa bind ci mburu mi bind ci moom fees dal daan lay jox ne la yaay ji bu ci lekk feral soo demee bëgg a feral sa doom lala da ngay wàññi rek ndànk rek ndànk-ndànk ngay wàññi ndànk-ndànk xale bi da daan xëy di nàmp journée bi yëpp léegi da ngay wàññi ndànk-ndànk léeg-léeg mu bëgg a nàmp nga xañ ko ko ba boole ko ci di ko jox muy lekk di ko forcer di ko ruyal di ko di ko di ko di ko mais imagineel nga xëy suba rek xale bi doon nàmp nga xëy suba rek dagg fi mu nekk nii ñuy tox cigarette mënuñu loolu lu tax mënuñoo bàyyi parce que tàmm nañ ko ñi naan sàngara lu tax mënuñu koo bàyyi parce que tàmm nañ ko nekk na seen deret kii tàmm soow nekk xale mënagul lekk lenn nga xëy rek dagg affaire bi xale bi di jooy guddi du nelaw ñenn ñi nu ñuy def dañuy jaral sax ñu soril xale bi seen bopp yóbbu ko seen kër maam wala seen kër ndax ñoom ñu mën a libre su ko defee xale bi dem foofu jooy ba ñu delloo si leen ko loolu loolu baaxul feral li ci lislaam santaane mooy ndànk ndànk la ñuy wàññi nàmp bi organisation la laaj ak toppatoo su ko defee xale bi du am benn problème du feeñ ci dundam du ci feeñ ci dara du ko feebarloo du ko indil benn jafe-jafe waaye xëy rek coupé beneen bi tamit mooy feral ci lislaam amul jël yóbbu ci kenn ak même boot boot nit boo amee doom da ngay dégg ñu ne tey lay boot mus naa toog rek benn benn femme ñëw ànd ak benn xale bu jigéen ne oustaz dama ñëw pour boot si ma ne ko waa bootal mu ne déedéet ah boot dama ne damay boot xale bi ma ne ko waaw sëgal ma tegal la ko ndekke du noonu nekk xaw ma dañuy jël benn paaka ndaw si sëgg comme nu muy bootee ñu teg paaka bi mu siggi paaka bi wadd ñu koy def juróom-ñaari yoon xaw ma am yu ñuy wax di koy tufli ci ndigli bu paree yaay ji taxaw ne ñu indi keneen ku jigéen ki nga non nekk noonu la ñuy bootee ah nekk noonu la ñuy bootee ma ne ko lii nag mu ne ñun lii ma ne ko man xaw ma lii lii gisuma ko ci alxuraan ah dañuy wër garab bu ñuy boot gis nga kii nee na seen kon dañuy wër garab bu ñuy boot juróom ñaari yoon da ay paakaak Sénégal dañu bëri problème ak ñu bëri problème li gars yi naan yowmal qiyaam boo gisee poussière bi waa Sénégal la wallaahi dëgg la lillaahi dëgg la ñoom daal bañ nañ diine ji lu ne il faut ñu def ko ci foog ñu def ci bidaa foog ñu def ci cirque foog ñu def ci foog ñu ñoom daal li yàlla kese kese wax daal dara vraiment dafa simple foog rek mu garaaw foog mu mu tiitloo nit foog mu metti ci lépp nag loolu du diine diine mooy lii yàlla wax yàlla mi bàyyiwul xale bi ci léppam yàlla du ko bàyyi buñ ko boot boot luñ ci luñ ci luñ ci luñ ci sampi paakaak boo wëri garab da ngay boot bootal neel bismillah sànni ci ginnaaw takk da ngay wàcce wàcceel ay déedéet waaw jouru sàngam lañuy lay boot ñépp ñëw toog jouru sàngam lañ koy wàcce jouru sàngam lañ koy feral té té té té jigéen ñi jigéen bi buy sëy day wër ay garab di tàggatoo dem di wëri ay ëkk ñu koy sang fii muy toog ci ay gënn suy juddu kazalik buy sëy si kazalik dañ koy muur di ko sotti dugub mos naa dem benn kër tudd de tudd ñu rendi xar mi ba pare daf ko ci benn bool bu mag ñu indi ñu indi yàpp bi fi liir bi nekk ñu bàyyi ko fa cinq minutes ma ne lii nag ñu ne ah ci ah ci ah fu ñu koy dugal nga ni ci suufu lalu wasin bi foofu foofu foofu liir bi tëdd dagg ci res bi sànni ci ron lal gi jaal jël boolu yàpp bi dugal ci ron lal gi fi fi liir bi tëdd ci kaw xoolal loolu ñu naan ñu ne liir bi day xeeñ ci yàpp bi comme du lekk day xeeñ ci allahu akbar moo tax da ngay xuloo di xuloo di xuloo rek ci xuloo ngay dëkk ku la gis dafa na yow da ngaa tàng neexoo deret da ngaa bëri looy discuter fekk lii kenn mënu koo noppi parce que xel sax nangu ko liir yow mii yow mii fi mu nekk nii bu ñu la tegaloon yàpp bu tooy nga xeeñ ko bu njëriñ la la amal suur nga kenn ci ñun na war ba ngoon ñu tegal ko yàpp gis nga yow ni sa soxna toog nga yàpp mu ne dee xeeñ ko rek bu ñoree nga xeeñ ko sax du la amal njëriñ waxuma laag nag bi mu ñorulee yéen yi du yëfu nit gis nga moo tax boo nekkul jullit rek doo am xel balaa ngay normal am xel rek foog nga nekk jullit ci bi nga nekkee jullit ngay nekk ngay nekk nit mais boo nekkul jullit wallahi doo nekk nit yëfu dof rek lañ lay def loo xam nga ne dagg ci res bi amoo loo koy def loolu di ko sànni ci ron lal bi nga bàyyi ko fa mu nëb di xasawal néeg bi xel nanguwul loolu ak nee rek xale bi liir bi day xeeñ ci yàppam mbaa yóbbu ngeen mbaa jox ngeen liir bi wàllam ñu ne waaw waaw bool bi léegi lañ ko génne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te nag yii rek nga ñeme wax ah yii nga ñeme wax am na yonneen yoo xam ne moom boo ko déggee waaw loolu mun a bàyyi wan ma loolu aada la man am naa ci histoire damaa watoon benn xale dañoo toog pa xot di toog di xaar papa ji papa ji tëx a ñëw ñu toog toog toog papa ji tëx a ñëw ba mu di jot moo war xale bi tudd ko mu ñëw delloo xar bi waaw delloo xar bi xale ba léegi rey luñ ko xar ba fii ma toog dafa ñëw ne waa gi indi problème man ko tudd naa xale bi eh sama doom mu ne bu dañ laa wa nga bay ñëw sa doom la ñun tamit jigéen gi suñ doom la sa doom nga xam suñ doom lañ xam tudd nañ ko mu daal di mer delloo xar bi jàpp ci buum gi delloo gis ngeen mu ne xale bi kenn du ko wat lu mu ne ñun suñu aada kenn du ko wat loolu mu ne bàyyi wat ma ma ne ko du fii de ñun de fii suñu aada mooy wat ba mu set wécc fii sunna moo fi dox kër gi sunna moo fi dox seen aada nga defee ko seen kër yaa ko indi suñu kër mu mer delloo xar mi sama sœur moo bokkal ndey gis nga lu doy waar moo tax sunu diine ji dafa am problème parce que diine ji dañ cee dugal ay aada bëri na tey loo gis fi ci dëkk bi nga defa ne diine la fekk du diine aada la mais jox leen benn misaal fi mu nekk ni kenn ci ñun bu ñu la mayoon biyee màgg nooy def ah da ngay dem seen kër may ko sa baab gis nga sa baab amul droit ci biyee boobu xam nga lu tax nga def may ko sabab xel nga utiliser bi mu ne yow nga liggéey ba am alal yow mii nga liggéey ba am alal yaa war a dem màkk wala sabab mais Sénégal da nga di yow nga ni fooy dem non yow yow yaru woo yow da nga reew yow sa baay sa yaay ah di xulli seen bët nag mel na ñoom ñoo ne ji da nga dal leen kii amul te yow farata la ci yow yaa am yow boo amee ba yóbbu nit boo deewee ci diggante bi rek safara nga jëm yow la nekk ci yow farata du farata ci sa pap da nga war a dem ba ñëw ah nga yóbbuwaate mais di ma ko boo dee ci diggante bi nag kee a du moom du farata ci moom amul yow mi am la nekk mais xoolal sénégalais da ngay gis mu yóbbu juróomi nit waaw man xam nga moi je suis jeune quoi encore décenat tuuti quoi xaar ba ci kanam booy dee dem jahannama parce que yow da ngaa mën te moom ba léegi demul gis nga bu deewoon ci diggante bi nag yow yaa war a njëkk a dem maanaam ñun suñu diine bi dañ cee dugal ay aada lu bëree bëri te loolu yëpp bokk ci te aada bi sax dafa dem ba ëpp doole da ngay gis tey bu liir juddoo bala ñu koy wat dañuy jëndi leket def ci groupe ah ak lan ah ak dugub ak lan lañ set ak lan ak xaalis ak lan ah ci
ci or waaw loolu loolu mooy diine loolu la diine santaane mooy bu ñu ko watee ba pare kawar gi bu ko kenn takk di ko def gàllaaj dañ koy yóbbu ci tëgg bi mu peese ko ñu xool ñaata gramme la suñu xamee ñaata gramme la 2500 ñu jël 2500 saraxe ko ñu jël kawar gi suul ah dañ ko war a wat ba mu set dañ ko war a wat waruñu cee desal dara naan ba mu màgg ak wala lii ñun suñu aadaak comme ñooñu naan njóobeen jóoba jubba ne day am jubbu dañ ci desal jubbu yooyu du diine de yooyu du diine wala ba lañ koy wat mu ne papa wat maag wala ñun laboo bange tukulóor yi ñoo naan laboo bange wat benn côté bàyyi benn côté loolu du diine kawar gi yonent nañ ko wat sobe la loolu la islaam wax da ngay dégg ñu ne sunnaay tudd ñett la watara watara mooy lan wat tudd rendi gis nga xam ngeen diine buy jàngale lii diine boobu dina bàyyi leneen maanaam ñun ñun jullit waruñu làmbatu loo bëgg a def rek lislaam wax na ci loo bëgg a def loo bëgg a def sa dàll yi nga bëgg a sol sax lislaam wax na ci soo koy simmi lislaam wax na ci booy dugg ci duus bi lislaam wax na ci booy génn lislaam wax na ci sa ak sa soxna sax balaa liir bi juddu wax na ci kon nag benn waaye dafa am doom indi ko ci yonent bi saa salaam ne damaa bëgg nga yar ko yonent bi ne ko tardé nga mu ne kii démb la juddu démb lañ ko tudd mu ngi nii tooy xep nga ni kii mënaguñ koo yar mu ne kii kay kii kay yar ko problème la kii yar ko problème la mu ne ah kañ lañ koy yar mu ne balaa muy juddu loolu nu muy nekkee mu ne nga tànnal ko yaay gis ngeen xale bi kañ lañ koy yar balaa muy juddu ndeke ku bàyyi ba xale bi juddu nga gàddu yóbbu daara da ngay sonal waa daara ja nga gàddu yóbbu ne nan ñu ma ko yaral am nga problème waaw du yaru kañ lañ koy yar balaa muy juddu nu muy nekkee mu ne nga tànnal ko yaay bu dee jigéen mu tànnal ko bàyyi ndax lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali mbokkam bàyyi buy naaw yaay di naaw mu doom di def ah non day bënn minute day bënn niir yi waaw bu bàyyi di tëgg sabar yaay di fecc walla yaay di tàccu doom nu muy def ah da ngay dégg artistes yi nga dégg mu ne ndey ak bàyyi laa ko donn ndey ak bàyyi yàlla moo wax dëgg yi gis benn artiste mu ne xoolal man ndey ak bàyyi laa ko donn way ji wala gis benn mbër mu ne ndey ak bàyyi man xaalisu ngeen xaalisu mbër lañ ma ngeen tey yàlla moo wax dëgg yàlla moo wax dëgg wallahi yàlla moo wax dëgg mbokk yi loola moo tax nga war a tànn tànn jigéen ju baax joo xam ne kenn du dégg kàddoom ci kaw joo xam ne kenn du ko gis ci mbedd yi muy langar-langar yi koo gis tamit da ngay gis mu sol lu baax wax ndànk dox ndànk waaye boo takkee jigéen athlète athlète nga takku baax na doomu njombor ngay am de am ngeen njombor am ngeen njombor de moom la xale yi naan lapin mun nga yem parce que yaa takk athlète waaw kon nag nañu bàyyi xel suñu diine yàlla wallahi lu mu nu wax mooy dëgg yàlla wallahi li mu wax mooy dëgg soo ko weddee rek boo demee 3 jours 4 jours 5 jours di nga gis li la yàlla wax mooy dëgg nga xam ne yàlla moom du waxantu parce que lu tax moo xam waxoon nañ leen ko barki dem wallahu yaalamu antum laa taalamuun yàlla nee na maa xam man mi xam kay su ma la waxee noonu la waaye bu ma la waxee nga topp leneen di jéem a ut sentiment waaw man sax wax dëgg yàlla xam naa ne yàlla loolu la wax mais xam nga rek mais xam nga dama problème rek borom bi ne fala junaaha amul bàkkaar alayhima ci ñoom ñaar bu ñu diisoowee wa tasaawur xoolal rek yàlla ci mbirum nàmpal mu ne diisoo suura wa tasaawurin mu ne diisoo leen allahu akbar yàlla bëggul bàyyi joo xam ne day wàcc rek ndaw si gis maçon yi di toj teel teel teel teel mu naan leen lii lan la yéen ku leen fi yebal wala yaay joo xam ne baay joo xam ne day yaay joo xam ne day toog rek gis ciment di sotteeku wala non da ngay diisoo bëgg naa def nangam bëgg naa def nangam bëgg naa defar fii bëgg naa def lii soxna yi am nañ ci xalaat bi ku la ne li ngay defar baax na ci ñoom hmm? xale yi da ngay diisoo bëggoon naa ñu defi nangam yow ci sa bopp da ngay diisoo bëgg naa defi nangam waaye jékki-jékki rek indi sa passeport ne soxna si bon dama damay tukki demee ah ah ni nga ma koy waxee mais après loolu la la la la damay tukki lu ma ciy tàggoo gis nga gis nga lépp l'islam dafa bëgg suuraa wa shaawirhum fil amr yàlla dana woon yonente bi sahaaba yi sax del diisoo ak ñoom yonente bi sallallahu alayhi wasallam sulh Hudaybiya pour mu génn ci dafa diisoo ak soxnaam soxna si moo ko ci génne keroog ba mu waxee sahaaba yi sahaaba yi lànk ne ko yaanu woon dañuy dugg ñëw nañ ba fii du demunu yonente bi am problème waaw man yàlla yónni ma ma nekk yonent may wax ak ñii tey ndaw si ne ko xam nga lan la ñaar dugg seen biir néeg mu ne ko ñii yow rek lañ gëm dañuy sóob nii rek mais wallahi boo sangoo watu taraxlaa yi boo génnee ñu topp la yonent bi jël dem sangu defaru ñëw génn rek gars yi xool ko kenn wax ko sa morom ku nekk roseet roseet roseet roseet roseet ba ñëpp jeex mu ne yal na yàlla yërëm ñuy wattu gaa yi ne ak ñu wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñuy wattu gaa yi ne ak ñu wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñuy wattu gaa yi ne ak ñu wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñuy wattu ak ñu wàññi jigéen kon nag mu nga kon kër gi gis ngeen ci nàmpal yàlla dane nan diisoo ndaw si bu bëggee feral waa ji bëggul feral wala waa ji bëgg ñu feral ndaw si bëggul feral luy xew xëccoo day ñëw kër gi problème commencé am xale bi commencé am problème waaw léeg-léeg góor mere jigéen di ko faj waaw ñëw an sa yaay yow nekk fere nga tulli pes sa yaay doomu rek toj pes ah xale bi lu mu def moom bi yaayam dem da ko tàggu wala an sa baay doome déet xale bi yoonam nekku ci waaw am na ñoo xam ne bu ñu meree seen jëkkër bëgg ko jot mënuñu ko jot dañuy saaga seen doom ci baay léegi ma nangam sa baay léegi yow xale bi nga saaga wala koo saaga kii ci biir néeg bi nga saaga wala léegi man nangam sa yaay kan nga saaga yaayam a ngi nii ci waañ wi saaga woo xale bi yooyu nit ñi nañ ci bàyyi xel xale du yàlla indiwu ko pour ñuy faj mer au contraire yàlla ko indi pour diggante bi gën a dëgër pour nit ñi nekk benn pour nit ñi seen jaamu yàlla yàlla mun koo nangu moo tax mu ne wata shaawurin nañ diisoo fala junaaha bàkkaar amul alayhima ci ñoom ñaar mu ne wa in aradtum bu ngeen bëggee an tastardiu mu nàmpalal leen maanaam keneen nàmpalal leen awlaadakum seen doom ni ngeen diisoo wa in aradtum bu ngeen nammee an tastardiu ngeen nàmpalu maanaam ngeen yóbbu ko feneen mu nàmpi awlaadakum seeni doom fala junaaha amul aleykum ci yéen amuleen bàkkaar la junaax amul aleykum amu leen benn bakkaar su ngeen bëggee beneen jigéen aussi nàmpalal leen ngeen waxtaan yéen ñaar ne ah nañu yóbbu xale bi nangam nangam ñu jox ko keneen mu nàmpalal ñu mais na ngeen ci waxtaan waaye ginnaaw isa sallamtum bu ngeen joxee ngeen jébbal maa aataytum la ngeen war a joxe su ngeen demee ba waxtaan ak ki nga xam ne moo leen war a nàmpalal ngeen jébbal ko li ngeen war a jox bakkaar amatu ci bil maaruuf ba tey rek ci njekk dama leen di laaj semaine bi yëpp ñaata maaruuf lañ jàng ah aaya bu nekk am na maaruuf allahu akbar yenn saa yi sax aaya bi am ko deux fois kon yàlla bëgg na njekk de yàlla bëgg na lépp lu ñuy def ci kaw suuf mu nekk bil maaruuf allahu akbar même ci keneen ki ngeen di dem di waxtaan ak moom di ko fay na nekk bil maaruuf keneen ki waxuma jabar ji de keneen ki jigéen beneen bi ko war a nàmpal ngeen war a dem di waxtaan ak moom di ko fa fas fas yéene fay na nekk bil maaruf ci njëkk wattaqullaha ragal leen yàlla waalamu ngeen xam anna allah yàlla basirun ku xam la bi ma taamaluuna li ngeen di def allahu akbar wattaqullaha mooy ci leen yàlla waalamu ngeen xam ne anna allah yàlla basirun ku xam la bi ma taamaluun ci li ngeen di def waaw ah basirun kuy gis la waaw ku gis la waala mu xam leen anna laa yàlla basirun kuy gis la bi ma taamaluun ci li ngeen di def kuy gis la li ngeen di def waaw léegi yàlla bu leen ne li ngeen def maa ngi koy gis lu la war damay laajte bu nu yàlla ne li ngeen di def maa ngi koy gis lu nu war li ngeen di def maa ngi koy gis lu nu war ah wallahi war la lu la ngay def tey bu ñu la boolee noonu ak ñaari gendarme wala président bi woo la bureau am nga dugg toog mu ne la yow xanaa xamoo li ngay def yëpp gaa ngi lay filmer bu dégg bëccëg maa ngi lay gis soo fa jógee nooy def ah da ngay normal wala allahu akbar buur bu tol ne yàlla mu ne waalamu xam leen anna allaha yàlla bi ma taamaluuna ci lépp lu ngeen def basiir gisama ngi ci tegu ku yàlla ne li ngay def yëpp maa ngi lay gis loo war war ngaa góorgóorlu de su fekkee yàllaa ngi lay gis nag gis nga li ñu doon wax sànq lii moo tax jullit day ragal yàlla su ragalee yàlla day baax lu ñu ko dénk soo ko dénkee alalu réew mi du ko parce que yàlla nga koy gis du yow lay xool du yow lay xalaat du garde corps yi lay xalaat ah lii lay xalaat lii yàlla nga may gis yàlla xam na ma xam na li may def alal ji ñu ma jox su ma ci jëlee yàlla xam na du nit ñi loolu moo tax nit ñi war a góorgóorlu di fal ñi ragal yàlla wallahi wallahi peuple boo xam ne dañoo fal ñu ragal yàlla peuple boobu texe nañ peuple boobu texe nañ waaye peuple bu wal ñoo ñoo xam ne góor gi nee na démb dafa am benn waay bu nekk ci àll rek dafa am benn waay bu nekk ci àll mu bëgg fu mu takk fu mu takk béyam amul garab gu mu ko takk mu ne chee mu yuuxu ci kaw nag àll bi daal moo ko wéet foo takk sa sa sa kuy sax amoo ko foo takk sa béy bukki daal di koy dégg rek ñëw daal di concentré wow koŋ xel ne garab waa ji romb rek ah ah lii de dafa mel ne garab yëngal yëngal affaire mu ne waaw waaw ëkk gi moom nooy na di ëkk gi moom rek tax na di ëkk gu am kawar bukki ne kon moom kay keng la def waa ji daal di jël kuy gi daal di ko ci yeew daal dem mu ñëwaat fekk bukki këlëbtikoo ko ngoog ñun tamit bu ñu jëlee ay bukki dénk leen suñu réew ay bukki dañu am problème lii rek la toog bi caagi rek ñu ne fu nekk am na benn turu milliard deux milliards sept milliards huit milliards cent milliards wala benn nit lekk cent milliards benn nit milliard te yéen a wax ne milliard mooy mille millions benn nit lekk waxuma sax mu lekk ci benn mais cent kooku lan moo ci waroon yóbbu ba ci stade rek dóor ko bal ci bopp parce que criminel la ku sàcc milliard wallahi wallahi wallahi dara yellul ci yow lu dul ñu yóbbu la ba ci stade daal lay sotti essence taal la su ko defee mbokk jullit yi lii mooy sunu diine lii la ñu yàlla di soññ ñu war koo jàpp war koo dund lii du lu ñuy barkeelu du lu ñuy raay wax naa leen démb la ne bu ñu bàyyee ba nit dee ñi ñëw tëral ko ci kanamu nit ñi naan ko wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa ñeneen ñi naan amin dañuy nax suñu bopp kii dee nan lay xamee léegi nu ñuy nàmpale attey nàmpal pour kii dund la ñuy dund ñu xam nan la ñuy nàmpalee nan yan problème moo ci am bu ñu fasee ndaw si mu yóbbaale xale bi wala mi ngi ëmb baa ji lan moo ko war ah wala ñu toog ba ci yàgg bëgg koo feral ñoom ñaar lan moo leen war wala ñu toog ba ci yàgg ñu bëgg a jël seen doom yóbbu ci keneen mu nàmpal leen lan lañ war a def lii mooy àtte diine yi lii nag bu ñu bàyyee ba nit dee ñu ñëw di ko liiral waa jaa ngi ne lareer mënatul dara problème muskila aaye bi ñu doon jàng dinañ ci jël ay àtte juróomi àtte mi ngi ci bi ci njëkk mooy wujubu irdail umm wala diha arradi yaay nàmpal doomam lu war la dafa jaadu wujub lañ wax wujub wujub ci islam boo ko déggee rek mooy dafa war fal force daf la war da nga war a nàmpal sa doom in kaanat mutlaqa même buñ buñ ko fasee wa saairu rida in kaanat gayru mutlaqa même bu fekkee fase wuñ ko dafa war suñ ko fasee tamit dafa war gis nga kon amoo droit ñu ne la may nañ la baat rek nga sànni xale bi sànni na waaw nàmpalal ko sa bopp da nga xam ne xam nga loolu nag ki koy def lu tax mu koy def pour naqaral bàyyi ji xam ne xale bi dina fi nekk di yuuxu di jooy loolu jaaduwul ci benn jigéen waaye aussi bàyyi ji bayaanul hadd al ala lirradi wa huwa amaani taamaani yàllaa ngi leeral nàmpal boobu aussi diir bi muy am mu ne ñaari at yu mat sëkk la yaay ji aussi war a nàmpal xale boobu kon déjà amatuñu problème tey xam xale yi dañoo war a nàmp wala waruñu nàmp ak ñaata at lañ leen war a nàmpal ak aussi est-ce que biberon lañ war a nàmpal ah amoon na fi temps waxoon naa leen ko sànq. waaw léegi nag ñun ñu dem daal dem bàyyi yàlla li mu wax ñu dem nàmpal suñuy doom meewu nag meewu nag loo ci gis. loo ci gis bi xale yi nàmpee soowu nag lu ngeen ci gis mbëkkaate rek waaw ku ci dox sax nii ngay def génne doole nag bi nii mooy ñaari béjjén yi génne dënn bi waaw waaw doole rek parce que nag doole la am nag amul xel kon nañu bàyyi xel ne sunu borom subhanahu wa taala lim ñuy jàngal pour ñu dund ko la mu ne yaay ji moo war a nàmpal doom ji fase nañ ko fase wuñ ko waaye diir bi mu war a nàmpal aussi mu mat sëkk ñaari at yu mat sëkk walisa fa ziyadatu alayhima gayru mu'tabar shar'an dolli ko ci ñaari at yooyu noonu dolli ci dem ay ñaari at ak genn wàll wala ñaari at ak benn weer loolu moom ci sharia nekkul lu ñu wax parce que yàlla moo dagg aaya bi ñetteel mooy jawaazu axzul ujra alal irda dagan na nit di nàmpal ne bala ma koy nàmpal nga fay ma gis nga ndaw soosu ndaw soosu ñu fase mu ne am na droit ne ndaw si waa ji fay ma ma nàmpal xale bi mais xam nga loolu tey sénégalais yi duñ ko def parce que ñoom jàpp nañ ne seen doom la dañ koy nàmpal soo joxee baax na boo joxeewul baax na dañ koy nàmpal mais dagan na ndaw si ne la bala ma koy nàmpal nga fay ma nga fay ko charia nangu na ko diine nangu na ko waaye rek tey ku ko fi defoon aussi boo ne ko woon fase naa la mu ne waaw fay ma ma nàmpal xale bi léegi da ngay dem si defem maa gis benn waaye benn jigéen joo xam ne day nàmpal doomam ji mu jur ñu koy fay su ko defee nit ñi commencé la weleleeli seen làmmiñ ñi comme jànguñu diine diine nangu na ko yàlla daganal na ko yonent bi nangu na ko te yàlla ak yonent bi lu ñu daganal lu ñu rafetlu ku ko ñaawlu sa affaire la ñeenteel mooy wujubu nafaqa al aqarib ala baadihim fi xaalil faqri waaw am na aussi loo xam ne dafa war ci parent xale bi baayam nekku fi ay mbokkam ñoo war a jël responsabilité fay ki koy nàmpal baayam a ngi fi am na moo ko war a def képp koo xam ne da nga am ay mbokk yu néew doole yoo xam ne dañoo am problème boobu yow war na ci yow nga dimbali leen ci loolu juróomeel mooy jawaaz dagan na irdaai lwalidi waladahu min murdiin gayru walidatihi dagan na nga am doom nga bañ ko nàmpal nga yóbbu ko ci beneen jigéen mu nàmpalal la ko waaye aussi nañ bàyyi foofu xel mooy ndaw soosu nàmpal sa doom ji sa doom ji ak ay doomam dootuñu sëy dégg ngeen wax bi ñaari nit góor ak jigéen bu ñu bokkee ween bu ñu nàmp loolu nag war nañ ko leeral ci kër yi da ngay gis ñaari frère yu bokk ndey ak baay ñu takk ay soxna indi leen ci kër gi seen doo seen sox seen jabari am doom ah ñuy nàmpalante doom yi te xale yooyu mën nañoo sëy te suñu nàmpalante xale yooyu bu ñu màggee amatuñu droit sëy képp koo xam ne yëg nga ni yaag jigéen bokk ngeen ween bu ngeen nàmp yéen ñaar araam na ngeen sëy kon jigéen ñi waruñu gàddu seen ween yi rek aussi xale bu ñu gis yenn saa yi nga gis ku dem ci kër xale bi jooy rek nga ni indi ko indi ko indi ko daal di jël rek daal di koy saxal ween ku la ko sant waroo ko nàmpal parce que ëllëg ak si biir sa doom bëgg ko wala doomam bëgg kooku seen ñaari doom yi bëggante fekk yaay ji nàmpal na kenn ki loolu tamit nañ ci bàyyi xel ay atte la yu ñu lislaam di jàngal ñun ñëpp ñu war cee taxaw euh, dagan na ku jigéen am doom te bañ ko nàmpal yóbbu ko ci beneen jigéen mu nàmpalal ko ko comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nàmpee ci yonent bi ñaata jigéen ñoo ko nàmpal ñaata jigéen ñoo ko nàmpal ah yéen ngeen bañ a tontu ba keneen tontu ko ñaari nit ñoo nàmpal yonent bi ba ci ñett sax ah ñaataa ko nàmpal xalimatu nàmpal na ko amina nàmpal na ko ak kan ah umu ayman soayib nàmpal na yonent bi ñetti jigéen ñoo nàmpal yonent bi yaayam xalima ak kon su ko defee loolu dagan na nga am doom nga yóbbu ko keneen nàmpal ko keneen nàmpal ko loolu dagan na ci lislaam waaye liñ ci bàyyi xel rek mooy ñi nàmp dootuñu sëy góor ak jigéen ñi dootuñu sëy saa yoo ngeen bokkee ween bu ngeen nàmp sëy araam na ci yéen kon mbokk yi lii mooy darsu tey ñu ñaan buur yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi in aradtu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin jazakum allahu xayran